kon mbokk yi dañuy seeti Abdoulaye Dia Kala Diop bi nga xam ne mooy maire Demet lan lay tontu Aïssata Aïssata Tall Sall tey boo ko xoolee nak ci journaux yi rawatina ci biir Direct di nga gis li ki nga xam ne mooy xibaar bi kon mbokk yi ñu seeti ki nga xam ne mooy Abdoulaye Dia Abdoulaye Dia Kala Diop ci biir wax bi nga xam ne nag wax na ko ci ñu xool nag tëkku bi nga xam ne mu koy tëkku ki nga xam ne Aïssata Tall Sall foofu ca Podor Abdoulaye Dia Kala Diop eh, mbiye dia sohale jaban kalajo sohale jabon kalajo eh, jembire ja sohale jabon kalajo jembire eh, ja sohale jabon kalajo e ko mire ja sohale jabon eh, kalajo jembire ja sohale jabon e ko mire ja sohale jabon kalajo jembire ja sohale jabon jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bandiraɓe sehlaaɓe e mi salmini foofu fof ko bandiraɓe e fof ko halpular e jarama e maagui nuyu ñëpp man nag e, nekkuma koo xam ne dama bëri furfara e jigéen bu waxee dangay wax xam ne jigéen moo wax waaye bandiraɓe fuuta halpular fuuta halpular diaspora unité africaine ak adduna e, da ngeen di dégg gis soog a gem Aïssata Tall nag suñu rakk la suñu jigéen la waaye lii mu wax démb daa taxaw ne noo bii la àndal te fuuta noo na ñuy àndal ñun ñu nekk Demet ma nekk meeru Demet moom mu nekk meeru Podor fa mu ko waxee ci dakaar foofu mu taxaw wax ko xanaa ñi fa nekkoon ñoo koy woteel noo waaye du fii ci région bii nga xam ne Podor Podor soo ko waxee wax Demet wax Añam gellongal wax dëkk yi am na ñoo nekk fii ci Podor waaye kenn ku nekk fi nga bëree foofu ngay daane balaa ngay nekk mbër dangay ngay mbappat ñun nag dañoo mbappat ba yàlla may ñu mairie Démette suñu mbappataatee bu ñu mayee yàlla mayee mairie Podor ñu mbappataat dañuy am région bi yépp sur le territoire national man lii maa koy xaamal sama wax bariwul Eh, di may wax sax ci communication télé rajo bëriwul waaye Aïssata Aïssata sat yow ana kangaatoo xana yow boo waxee li nga wax ne yaay wote non yow la concerné waaye fii Fuuta demet région de de Matam ci boppam sax dañ la fay dàkk ba nga génn door Podor da ngay jaar ci po bi génn door ñu nag de munoo ñu munoo ñu tax a def bañ a wax wii man Abdoulaye Elimane Dia Kalajo damay wax wii wiiw wiiw wiiw wiiw wow wow wow wow wow wow wow nii ak bu wax la xam nga dangay wax wiiw am na wow waaye bii damay wax wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wolof bi neexul waaye boo ko accéléré dafay nekk kon xaj buy jooy te xaj fu mu jooyee tànkal ñëpp te yii bi bu gàñee ñëpp nañuy tànkal moo tax moom ay sata ay ay sata xoolal bu baax li ngay wax de xanaa kool danga nga gëj Podor wala nga gëj dugg ci biir Podor da ngeen di nekk mais rek fàtte foofu ngeen yaakaar ne li nga fa bàyyi woon moo fa am loolu soppeeku na de man Abdoulaye Jakkalaajo maire Demet ay sata ay Aysata xoolal bu baax li ngay wax Aysata juumuloo <laughs> man ak yow danga nga ne ñeenti yoon ngay wote yaa ko wax ci télé bi ñëpp seetaan nga ne yow bu fekkee ne non bi ñeenti dañ ko doon wote yow ñeenti yoon sax nga koy wote te benn yoon la nga bëgg wan ne danga sokor ñeenti yoon man mii maa lay wax ne ñun waa Demet yëpp waa podoor yëpp waa maatam yëpp du ñu yem sax ci waaw. dañuy wax waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw one mbiye ja so haali jaɓon kalaajo kalaajo waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wow, wow, wow, wow, wow.